réewum Sénégal dugg ci langum réew yi nga xam ne ni ñoom ñooy produire ay hydrocarbures ci communiqué bi nga xam ne ni moom la compagnie pétrolier bii di Woodside Energy fësal mu ci xam xamle ni amal na production baril bu njëkk ci champ Sangomar bi nga xam ne ni moo ngi fay liggéey ak Petrosen nguurum Sénégal ak yeneen sous-traitants ndorteelu liggéeyu pétrole bi nag ci champ Sangomar bi dana indi ay coppite yu bare ci industrie yi ci koomu réew mi waaye rawatina ci bu ma yi bu ñu sukkandiku sukkandikoo ci directeur général bu Petrosen mu di Thierno Ly mii xamale li ni mel ci communiqué bu Woodside phase bu njëkk bu champ de Sangomar bi mu di ab projet bi nga xam ne dañ koy amal ci ab eau profonde nga xam ne ni dana am ay jumtukaay yi nga xam ne ni ñoom ñooy yor wàllum production bi am ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñooy denc la nga xam ne ni moom lañ fay jëlee ci pétrole ngir liggéey boobee mën a antu am na gaal bu mag bu ñuy woowee FPSO Léopold Sédar Senghor bi nga xam ne ni dina def liggéeyam ci lu toll téeméeri ndax bés bu ne dina mën a génne lu toll ci téeméeri junni baril ak it yeneen jumtukaay yi nga xam ne ni daañu ko soxla ci bile première phase bu ñu sukkandikoo ba tey ci bataaxal bi wut Woodside génnee ñaari fukki teenu pétrole ak ñett ñoo nekk ci première phase bi gannaaw bi nga xam ne ni rafetlu nañu liggéey bu mucc ayib bi nga xam ne ni amal nañ ko ci seen lëkkaloo ak Petrosen état bu Sénégal ak yeneen i sous-traitants yi fas yéene nañu wëyal liggéey bi ngir ñu yokk production bi te mu gën a mucc ayib.